internetu dakaar Media TV nuyu nañ leen bu baax a baax di am mbégte à chaque fois ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun ci suñu ay programme ñu leen di dalal jàmm ci seen reportage du jour euh, tey nag ñu ñëwoon fii ci Liberté 6 euh, fas yéene fi waxtaan ndax gis nañ ne euh, leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Bara Ndiaye ak Pape dañ leen daal di évacuer xam ne moom mooy ca hôpital ak ñu ci bari ndax dañu déclaré woon li nga xam ne moom mooy grève de la faim ñu gis ne que aussi waa Pastef génnee nañu ab communiqué di xam ne ne que lépp dal seen leader rek responsable bi du kenn ku dul président Macky Sall ak régime am euh, daal di nañuy joxe seen xalaat waaye dañuy dem tamit ci askan wi ñoom ñu joxe seen xalaat ci li nga xam ne moom mooy situation bi ça va noo mbay ça va bien. Euh, naka nga gisee ci euh, leaderu Pastef bi ak ñeneen ñu ci bari fu nekk nii dañ leen yóbbu en urgence ndax grève de la faim bi ñu commencé woon. waaw soxna si maa lay nuyu di nuyu seen waa groupe di nuyu Sénégal yëpp di ñaan yàlla nag message bi nii ngeen di def. yàlla na jàll bu population Sénégal ñëpp gis ko yaa ngi dégg parce que dafa nekk message boo xam ne messange bu am importance la c'est que dañu toll foo xamante ne nii dañuy wax dialogue mais il faut ñun citoyens yi nga xamante ne nii ñun ñun ordinaire yi bokk il faut ñu jaloog ak nit ñi quoi mooy lan mooy message comme yi ngeen di def nii quoi parce que ba léegi jaloog ci jaloog la bokk ñu toll ci àdduna boo xamante ne nii tey soxna si vraiment neexul ba neexul mais man mëneetuma xame gor ñi ak jaam yi quoi yal na ma ko yàlla jégal jégalati ma ko parce que ñun ñëpp ay jaami suñu borom lañ mais nag maanaam ñi nga xam ne nii ci li ma la ko mën a misaale ñi doylu ak ñi doyluwut mëneetuma leen a xàmme ngir lan alalu àdduna quoi ñoom Ousmane Sonko li ñu def yoon la yoon lañ def de pour man quoi man bu doon man la aussi noonu laay def parce que xam nga lu tax mooy doomu aadama la boo ko xëyee ba toroxal xamul fu mu jëm nit ni doomu aadama bu xëyee boo ba ñu ne jàpp nañ ko rek xamatul nu muy def te it ñoo am nañ plein droit tey def grève parce que tey bu dee yow dama am ak yow problème nga tëj ma di ma jox lekk su ma ci amul confiance mën naa def grève parce que xaw ma li nga may jox mais nag de pour man bu ñu leen bàyyi woon seen i njaboot di leen toggal la ñu bëgg di leen ko yot ñu koy lekk pour man conséquences yooyu kon du ci am quoi. man pour man loolu laa gis ne bu ñu leen bàyyi woon seen i njaboot comme Ousmane Sonko ak ñam fa nekkal ña leen doon toggal ñuy lekk ba toll nu ñu toll bu ñu leen doon toggal di leen fa yot kon ñu lekk mais nag bu dee dañ leen a tayee ñoom ne leen ñoom ñoo leen di jox lekk te amuñ ci confiance am nañ plein droit def loolu. mais nan nga gisee waa Pastef euh, nañu yëkkatee ay kàddu ne lépp lu leen dal rek ñoom jàpp nañ ne que euh, président Macky Sall ak régime am. waaw mais loolu c'est normal c'est normal parce que euh, maanaam ak ndogal bu yàlla mais yàlla du wàcce ndogalam sans nit mais seen ndogal bi leen dal moom ci loxo ci loxo boobu la dal te loolu yëpp xëccoo alalu àdduna la parce que tey ki nga xamante dañ ne ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi tey lan la waroon a mel dafa waroon mel ni ab sën lu ñu bale tuur ko ci kaw mu muñ te xam ne bu dee bu dee loo xamante ne nii nguur la nguur rek la nit mën a am ci àdduna loo xamante ne nii moom lu mu lu ko gën a kaw mënoo ko am yàlla dogal na am na nguur keneen bu ñëwee lan moo ko war mooy na ko muñal xam ne lii la yàlla dogaloon si moom kiit it lii la yàlla dogal si moom doomu aadama da ngay nangu dogal ko parce que Sonko li ne ci moom yàlla moo ko def si moom Macky Sall yàlla moo ko joxoon réew mi bu ko ko naree xañ barke Seydouna Mohamed Sonko prison ba mu nekk bu naree nekk président dina ko doon même ñu valider candidat am ak ñu ñokk valider bu ko naree nekk ci suñu borom loolu pare na Macky Sall keneen mënu ci dara yaa ngi dégg mais nag li ma leen di encouragé mooy nañu nañu gëm yàlla to lekk xam ne ab nattu la bu leen yàlla teg yal na ko yàlla tegi ci ni mu gën a gaawe te ñoom ñoom état moom it na seet ne gis nga nit doomu aadama bul seet ñi nga ñi la ëpp del xool ñi nga sut parce que lii muy def ci réew mi conséquences ñun ñii la gën a métti parce que ki nga xamante ne nii tey bu amul 1000 francs du dem liggéey parfois càq-càq yi dañ leen di tey fii 2 jours 3 jours te ñu ngi yor ay jabar yor ay malade ci hôpital yi war leen a dem fayal leen Hmm? mais lan moo jar affaire adduna ñuy lor doomu aadama yi chaque jour ci loo xam ne boo yi ngay gis ñuy dem ci gaal yi dara méttiwu leen ndax naqaru Sénégal man mii bu ma yoroon xaalis damay dem ndax ci naqar laa dëkk maa ngi bëgg a faj loo xam ne mënu ma ko faj. waaw métti nañu trop ndax euh, tamit ñun Ousmane Sonko dañ koy jàppee sénégalais comme sénégalais yëpp aussi mu nekk nit boo xam ne tamit nit bu am yaakaar la nit boo xam ne sénégalais bi bëgg nañ ko nekk nit boo xam ne lu yaakaar la bu ñu sañoon daal ñun. danañ bàyyi ñëpp réew mi mën a nekk ci dal ñu mën nekk ci stable bu baax ndax actuellement réew mi coono yi métti na liggéey jafe na xat-xat yi métti na en plus xale yi di xeex réew mi laajul loolu ak fi réew mi ndax métti na trop trop bu ma sañoon nag dinañ bàyyi Ousmane Sonko mu génn ñu dem élection ñun ñëpp que le maire gagne parce que ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg muy defar Sénégal tamit yaakaar naa Sonko gis-gis bi nga xam ne moom la euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi yor gis-gis boobu rek la yor dafa gis ne ñoom yorin bi ñu ko yor ñoom war na mën a yor moom bu gën yorin bi ñu yor kon léegi ñun nañ ko jox mu xool ba xam moom nan lay doxalee ndax ñun senegal rek la ñu bëgg ñun bëgguñu Ousmane Sonko bëgguñu Macky Sall bëgguñu keneen senegal la ñu bëgg moom rek la ñu am. ñu gis ne waa Pastef génnee nañu ab communiqué di xamle ne que euh, jamono ji ni seen leader sonné di Ousmane Sonko lépp lu ko dal xalaat nañ ne que Macky Sall la ak régime am. waa loolu lañ ko mën a jàppee man mii wax yow loolu laa ko mën a donc euh, gis nañ ne accusation yi bëri na ci kawam tuuma yi xëy na bëri na ci kawam léegi nag leneen la des muy am na amul loolu walaawul ahlam yàlla rek moo xam mais en tout cas lu mu ci mën doon mettina te réew mi dana toll foo xam ne daanaka dutuñu xàmmee kan moo tooñ wala dutuñu bëgg a xam kan moo tooñ léegi li ñuy bëgg mooy lu dalal réew mi Ousmane Sonko ni ñu def métti na trop ndax boo xoolee euh, diiru 300 yi mën nañ ne jàmmam bariwu ci parce que chaque jour ñu ngi ci Ousmane tey Mame Mbaye Niang la suba aj saar la tey sàcc na téléphone jàmbur am na yoo xam ne vraiment sonn nañ daal j'en lan nga xalaat ne mooy indi jàmm ci réew mi. jàmm ci réew mi kenn rek moo ko mën a yor muy chef de l'état euh, Macky Sall donc ñu koy ñaan comme Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom te defar rek moo leen tax a jóg euh, lii dañu bëgg mu teg ci tànkam bu ñu xool lu lu xew ak lu xewul bu ñu xool lu tooñ ku tooñ ak ku tooñul li ñu bëgg mooy ñu bàyyi mu dal ñu libéré Ousmane Sonko. bàyyi ko mu dem élection comme loolu rek mooy gis-gisu askan wépp loolu lañ bëgg nañ ko bàyyi mu dem élection parce que réew mi lu dul jàmm xaju fi Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xañ xar ñaar donc boo xoolee xeex bi métti na parce que ba tey suba maa ngi dégg côté Ziguinchor ñu ne xeex bi mënagul jeex foofu ba léegi te buñ xoolee pourtant ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ nañ bàyyi ki nga xam ne moom lañ téye ba tax fitna bi jóg nañ ko libéré réew mi mën a nekk ci jàmm parce que métti na trop te kum doonoon ci yow tamit dina métti nag ne kenn ku nekk buñ xëyee tàqal ak sa njaboot di la teg yenn tuuma yi dina métti trop loolu état bi nañuy sóoraale loolu ñoom fu ñu man a toll métti nañu trop nag dañ see mënul dara mais liñ mën daal te dëkk ay julit di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla génn ci situation yi mu nekk yàlla def ko président Sénégal comme moom la ñëpp bëgg yàlla bañ a tas suñu yaakaar ci moom aussi mu nekk président bi nga xam ne bokk na ci président yi gën ci Sénégal président yi liggéeyal Sénégal Sénégal am jàmm dal ñi nga xam ne nekkoon nañ ci xeex ba yàlla moom ci seen bakkan dañuy ñaan aussi seen kaw yàlla na leen Euh, li nga xam ne ñoom lañ bàyyi ginnaaw moo xam ñi nga xam ne borom yi soxna lañ wala ñi nga xam ne amuñuy soxna kenn ku nekk na leen yàlla mooy xolub muñ boo xam ne nañu lool ci ci interview bi nga def ak ñun daam ñu gis ne que euh, ni kii barke démb euh, lañ ñu xamal ne que moom Ousmane Sonko dañ ko daal di yóbbu en ndax dafa sonnoon ak Cheikh Bara Ndiaye ak Pape ñu ci bari fu mu nekk nii grève de la faim nga xam ne moom lañ commencé woon moom moo leen sonal noo gisee li ni mel. ah lu ko dal état bi rek la wax dëgg yàlla amuñ kenn ku du Seydina Ousmane waaw nañ leen bàyyi ñu dellu seen liggéey kenn ku ne mooy loolu ko man duma sa morom loolu laa gis daal man wax dëgg yàlla nañ leen bàyyi sonal leen trop wax dëgg yàlla defuñ dara ndax gis nañ ñoo xam ne si ay foobee lañ fi yor ay milliards ñu bàyyi leen ñuy doxantu ñoo xam ne si ay terrain jàmbur lañ jël gis nañ leen fii gis nañ Covid 19 bi gis nañ ko ñaata milliards yoo xam ne si mille milliards yoo xam ne si amul awul fenn gars yi sàcc ko lekk ko te mu mujjul fenn ñaata milliards yoo xam ne ñoom ministres yi yëpp kenn ku ne épingle ay milliards kii politicien la daa bëgg soxla réew mi ngeen sonal ko mooy loolu fatt ko te fekk teg foo yàlla tegut am na dafa ñaaw ci doomu en tant que sénégalais ak sénégalais ak nañ mel suñu diggante ak ak Dakar yëpp mooy loolu lépp ci sénégalais dafa ñaaw ci gis-gis nañ bàyyi li def nañ bàyyi doomu jàmbur mu dem wuti métier kii dem wuti réew mi ku man moom ñu teg seen mbëri kee teg mbërëm kee teg mbërëm man sa morom duma loolu laa gis nañ bay caaxaan ay caaxaan kese ci la nekk teguñ ko fenn leen def waaw. Euh, gannaaw bañ ko bañ ko yóbboo fi nga xam ne moom mooy hôpital waa Pastef ba ñu génnee ñoom ñu ngi xamal ne que euh, lépp lu dal Ousmane Sonko duñ ko jiin kenn ku dul euh, président Macky Sall ak régime am. kese ñoom kese la lu ko dal moom la Macky Sall la ndax moo ko def yóbbu ko fee tëj ko fa mooy loolu tam dégg naa dafa feebar te moom dafa am asthmatique te bëggul foo xaay si fu xat xam mooy loolu loolu nañ bàyyi jàmbur bi. soxla naa réew mi rek ñu bëgg koo teg fu yaa ko yàlla teg nañ bàyyi jàmbur ngir yàlla mu liggéey dem wuti uh, wuti réew mi ñooñu teg seen mbëri kenn ku ne teg man sa morom mooy àdduna lii ko Abdoulaye Wade tegoon du agsi fii moom keroog mi dem ci Abdoulaye Wade di jooy naan dimbali ma Cheikh Bara dimbali fekk ñëpp fi lañu fekk nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi caaxaan yi te bàyyi booy bi mu dem wuti booy bi moom du nekk dealer nekkul dealer nekkul comme kii daw ci wetu sëriñ ñaan dimbali dimbali ma ngir yàlla ak ngir yàlla loolu booy bi du ko def booy bi di ko def booy dafa am fulla am dignité am caractère am charisme lépp mu ngi ci booy bi nañ bàyyi booy bi mu dem mu dem wuti ndee réew mi bu ko suñu borom ne moom moo koy yor ala kulli ale mënu ci dara dañuy soxla seen bopp mënu ci dara waaw. Euh, ñu dégg à chaque fois moom président di yëkkati ay kàddu ne que euh, dafa fonk bu baax a baax li nga xam ne moom mooy démocratie est-ce que bu ñu jëlee li nga xam ne moom moo xew ci réew mi jamono ji euh, dippoo na ak démocratie. non loolu amul démocratie amul Sénégal moom wax dëgg yàlla amul Sénégal amul wax dëgg yàlla. yow boo àndeek man sa gunnaa ndaat loo wax noonu la looy bëgg wax noonu la lu la neex wax ndax gis nañ koo xam si taxaw na ni fii am Ousmane Sonko dañ koy waaj dañ ko war a rey maa ngi doxi soxlaam am na koo xam ne si wax safaan wa ni Macky Sall bu kii mooy loolu réew mi day nekk en kaw ñu jàpp tëj kaso ñu kii ko am na loo xam si mooy loolu ñu bàyyi ko mu doxal seekat ku ma am day ku am day mu am ci réew mi boo àndee Macky sa mooy loolu loo wax mooy loolu nekk sa garam boobu rafet na yaa rafet dara yaa fi gën a neex yaay borom tinelee point yi mu daal lay tàgg jox la lu du jeex ndax gis na fi fii benn agresseur bi yor jaasi ni ku wax dara Macky Sall man ay la mujjul fenn am ñoo xam ne si nit dof see nga li mu defoon bërki démb bu yàggul li mu def daal di wax li mu wax daa di ba mu pare daal di taxaw ci publiquement jégalu ñoo ko ràpp ci kaso bi kay yor jaasi génn taxaw ci publiquement loolu ko neex def adduna nañ bàyyi nañ def ngir yàlla voilà mbokk yi dégg ngeen réaction yi nga xam ne askan wi joxe nañ ko par rapport ak situation bi ñu leen ciy jaajëfal waaye di jaajëfal sama cameraman di jaajëfal aussi suñu mbokk internetu u Dakar Media TV di leen wax rek ñu scotché wu ci chaîne bi waaye tamit di wéy di abonné ci euh, Dakar Media TV.